Thank you. Ibrahima Koba Ngoy la mu ne ma bëggul woon a mu wax tur bi dinaa ko wax ndax ku la fees loo moo la yàpp loo dégg nañuy wax ci xabru cerno bi liñ koy taarale moom mu dem tukki lam am yépp mu jënde ko ay bagages ne nañ koy ko joxal Baye Ousmane mu yóbbu kër cerno teg na ko ci loxo sëriñ bi sant na la gërëm na la te la yàlla yéen a wax ne bàyyi dem ba mooy seen xibla waaye ñu nit suñ xibla ñun ñépp mooy Cheikh Assane lu koy taaral lu wone itam liggéeyam ci kër Cheikh Ibrahim bëgg nañ ku ñu ci dimbale Cheikh Assane moo wax ne li bàyyi indi kenn gënoon ma ko xam li ma wax xam ngeen ko kenn gënuma koo xam di ci ñu weex di ci ñu ñuul di ci ñuy njëkk du ci ñuy mujj man ak njëkk ak bàyyi laa xamut ak mujjam kooku xam na ma ko wax ki wax nekk inna ni xablal baraya xubbuhu soxlal jinaani ku wax loolu koo xam ak njëkkam ak ak mujjam mat naa moytu mbaa nga bàyyi ko xel kooku mooy suñu sëriñ Mawlana Cheikh Hassane Dème mi nga xam ne bàyyee ko woo ci baatin mu fekk si ko ceeb indiwoo ko fi ganaar indiwoo ko fi ñëwut def ko naaw la jam jaamaa lu tudde boppam te kenn ku nekk xam nga ne luy xam-xam li doon balle ci moom bàyyi Seex Umar Touré mi ko xam ba wax ne bàyyi téye ko moom xam na kenn yàlla fer mi bàyyi Seex Umar Touré ndax dëgg dëgg liggéey bi tey mun nañu wax ne bàyyi Seex Umar Touré la ndax moo ñu téye ak gaynde googu ñu ngi sant yàlla loolu ci bu baax a baax siyaasan dem ma lay wax ne xadra bii xadra bu bëgg cerno bàyyi leen xel te leen ñaanal jàmm lu ñu am kat cerno la jëm ñu ngi góorgóorlu ci mois de août bu nekk sàqam kase xasan dem te loolu mébétam bàyyi dem ci la déparé nit nag bu defee lu baax nga wax ko daf koy dolli daf koy dolli fit ak njàmbaar ak dolli ko góorgóorlu bay dem ba téere yii ñu iya, la jox yalla na yalla def mu nekk lo xamné ne nga xol ko nga ñak ko xol yépp bàyyi sol la ko nga fess loolu dana bu la neexee lii rek bu la neexee nga bañ a liir loolu xam ngeen xam na bàyyi def na ko alhamdulilahi rabbil alamin kontan nañ ci ko téré yi nga yóbbu ko xam naa sa doom yi nga koy I Allah. du baaxi dem ñu doog wax jërëjëf Baye Demba si eh, ñu wax alhamdulilah neɗɗo ko bandum bu doon dama dégg da ngeen dégg séréer dina lakk sama séréer ma wax ne Baye Niass laxay moroom Baye Niass buy xam serwe ki rek Baye Niass rawteral laxay sëriñ laxay taalube wa lax yonent yàlla Muhammad ay bañes na bàyyi dégg na lu ne bu maa guddal ñépp kontaan nañ bàyyi dem ba ñépp wuyu si nañu ne sa barke sëriñ yu baax yi yàlla na yàgg si yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla wattu la ni mu wattoo asamaan ba du maxe yàlla yàlla aar la ni mu aaree boppam bay dem ba ku bax la la do fuk wala salat ya dak si yalla yalla barkel la xana ci ndigal sëriñ bi rek ñu ñaan ndigal sax ma ngi dem mangi ngi ñaan ndigal dama kontaan ah waaw ñu jang alquran ñu jox suñu alhamdulillah suñu doomi sëriñ ci ndigal sëriñ bi cheikh bayka mu jangal ñu alquran lu jitu inshallah ñew ci ngeermande ak kaddu yi rahmanir rahim wazkur fil kitabi musa inna إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ونادى وهبنا له من رحمتنا أخاه bàññees jërëjëf ci bàññees ñi ngi am sant yàlla bu baax di nuyu mbooloo bi yépp ku nekk ci trom ak ci santam di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ di sangu jataa bi mooy Cheikh Abdoul Baqi Assane dem di ko ziyaara di ko wàcce ci wàccuwaayam di ñaanal yàlla yann yàlla yokk ci zaar ci bàttin barke Cheikh Ibrahim di ci teg suñu sëriñ Mawlaya Cheikh Ousmane nga xam ne lépp moom la parce que moom moom mu ñu indil ki nga xam ne mooy suñ sang bii moom Mawlaya Cheikh Demba ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk ci trom ak ci santam di wax kàddu yi nag daanaka du gudd parce que suñ magu bi jaar na fi muy Yamar Ñang nga xam ne ci ay kàddoom rek la ñuy jaar liñ mënta am rek mooy ñu ngi sant yàlla bu baax ci jataay bi nga xam ne dara waralut ko lu dul liggéey Cheikh Ibrahim dara waralu ko lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa ñu màggal ko ci nga xam ne Baye waxoon nañu ne sonnee mbir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi kim yaawu ñi ñàkkoon ci la ñuy amee ñi feebaroon ci la ñuy wéree ku nekk li nga bëggoon ci nga koy amee ci yonent bi sallallahu alayhi wa parce que amuñu ku dut moom ñu sant yàlla nag bañ amee Cheikh Ibrahim boobu nga xam ne moo ñu joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa ba wax nañu wa in tasaluni xan habibi wa saydi fata habiballahi mal xayri ma wa ma bàyyi mu ne bore ma lajee kan mooy sama soppee na ngeen xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kese ku dut moom jarul sax bëgg kon lépp lu ñu am ñu ngi ko amee ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi yoon boobu rek lañ topp ba tey ñu taxawal lii ci suñu buntu sàng bi muy Mawlaya Cheikh Demba Sy ñuy sant nag ñépp ñoo xam na ñu ngi teew fii di ci jiital ah suñu mbokk taalib yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom ak muqaddam yi nga xam ne ay soldaar lañ ci hadara bi ñu nekk fu nekk ci ndigalu sëriñ bi dafa liggéey ñi bàyyi ko Casamance ñi bàyyi ko Saalum ñi bay ko Dakar ñi bay ko fu nek ñu ñew tay dajale sen doole ando ngir taxawal li tay kon liñ ta am rek moy ñu ñaan suñ serigne si nga xamne ñi nga and ñi nga ñew fi tay tew ñu ñaanal suñ sang bi di Mawlaay sax dem goor la bo xamne wax deug yalla ni ko suñ mak Yamar Ñang waxe ñun sant nañ yalla bu ñu ande ak mom parce que jamono bu nek mo ngi sigil fu nek jamono bu nek yoonu ñub rek mom lañu tek moy yoon bi nga xamne comme ni suñ Yamar waxe ci la ko sëriñam yi yar ci loolu rek la ñu teg di ñu xiir ci bëgg yàlla di ñu xiir ci jaamu yàlla di ñu xiir ci sàkku xam-xam ci anam bu nekk kon wax dëgg fa yàlla ñu ngi ñaan yàlla bàyyi dem si yann yàlla yokk ko bàyyi demb si yann yàlla yàggal ko fii bàyyi dem si yann yàlla garanti ko ci zaay rek ci baatin ñu ngi ñaan yàlla nag képp koo xam ne teew nga fi rek yann yàlla dégg nga fayante ci lu baax ci barke Cheikh Ibrahim comme ni ma ko waxee rek kaddu yi mënut nekk luy gudd ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla commencé nañ ci bismillahir rahmanir rahim yalla nañ ko terne ci alhamdullilah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad haqq qadri miqdar azim jere jërëjëfe Baye Niass iyyaka na'budu wa iyyaka sahin ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddaalin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى قدر مختار العظيم ñu wax jërëjëf Baye Niass ñu waxaat jërëjëfe Baye Niass ñu waxaat jërëjëfe Baye Niass ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent Yàlla sallallahu alayhi di gërëm Mawlana Cheikh Ibrahim Niass nga xam ni pàkk bii bu melee nii jaamu yàlla yi teew fi nii ñëpp bàyyi seen guddi yi neex yi ak seen lal yi neex yi bàyyi moo toj seen xol yi def ci yàlla moo waral ndaw ñi ak mag ñi ak góor ñi ak jigéen ñi ñëpp bàyyi seen yitte ñëw wuyu suñu suñu bés bii nga xam ni bésu sant yàlla la bésu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés bii dara waral ko lu dul wane liggéey Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ci sunu buntu sëriñ mi naa Cheikh Demba gërëm nañ mboolem ki fi teew gërëm nañ góor ñi gërëm nañ jigéen ñi gërëm nañ mag ñi gërëm na ndaw ñi waaye nag duñ taay di gërëm Cheikh du baax Assane dem ci teewaayam ku la teewal ay ati at kooku amuñu fayam. gis na ni mu jàppee xadara bi gis na ni mu jàppee gàmmu gi gis na nu muy fugloo suñu xadara bi ak ni mu bëggee mbokk taali bi ak nu mu bëggee suñu imam bii nga xam moom Mawlana Cheikh Demba kontaan nañ ci moom bu baax xadara bi amuñu fayam ndax joxuñu ko fi dara loo xamante ne nii bii mooy quinzième édition musu koo wute ngante mënta ñàkk tawat na fi ci diggante bi tukki na fi yeneen ak yeneen def na ko waaye terewut yëpp day bàyyi ay itteem mu ñëw teewal ni suñu bés bi te du dara luñ ko fiy jox ñu ngi koy gërëm bu baax su simaaren ñu ngi koy gërëm bu baax alxamis la fi nekk ba léegi kooku alxam ci ñun cofeel waaye du dara luñ ko jox gërëm nañ ko bu baax ñu ngi gërëm bu baax Baye Ousmane bés bii bésam la njaboot yi ay njabootam la Baye Demba joxuñu nu kenn ku dul moom wane nu kenn ku moom xamal na ni moom mooy imaamam moom mooy sëriñam moom mooy njiitam ci yàlla gërëm nañ ko bu baax sant nañ ko gis nañ taar bi nga xam ne moom def ci Mawlana Cheikh Demba bu defoon ci moom lu ñaaw ñun Mawlana Cheikh Demba la du yàlla jagleel bu defoon ci moom lu ñaaw lu ñaaw rek mooy ne ci ñun waaye bu fekkee ñun dañoo am lu rafet moom la parce que moom moo def ci moom lu rafet gërëm nañ ko bu baax moom Baye Ousmane ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokk yàlla yokk ay fanam yàlla wéral ko ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi gërëm bu baax a baax a baax mboolem mu xadam yi fi teew buñ limee dañuy juum ñu ci mel ñoom Baye Ndiaye chaque année dañuy teew ñëpp ay teew Al Ousmane yi ñu ñëpp ñu ngi gërëm góor ñi ñu ngi gërëm jigéen ñi ñu ngi gërëm mag ñi ñu gërëm ndaw ñi ñu gërëm ñëpp ñu ngi gërëm bu baax waa IM télé depuis bi gàmmu gi taxawee ba tey ñëw neen def sëriñ bi interview dugal ko ci internet bi lu nekk ñu koy def bu boo boobu ba léegi taayiwun di sonn di ànd ak Sidi Mohamed di yóbbu affaire bi fu nekk ci alam bi mbokk taalibe yi bëri yëg nañ ko ci niveau internet bi ñoom ñoo tax nu yëg ko gërëm nañ leen bu baax set na leen ñu ngi gërëm bu baax waa Dara Dunya ñoom tamit quinzième édition mosuñu woon laaj dara chaque année dañuy defal publicité dañuy publicité te duñ fay dara gërëm na leen sant na leen ñu ngi gërëm baax sunu sunu sunu parrain bi muy Pape Diouf ku bëgg Baye Dembal boo dee ak kàmmaa boo ne ko taala Baye Dembalaa sax day kontaan nga xam ni kooku am na cofeel ci Baye bu baax soo ko rek bëgg na la soo ko bëggul rek bëgguñu la ak koo mënti doon foo mënti jógee moo tax dañuy kontaan bu baax ci Anta moom sunu yaay xadara la day jàpp day jàpp ci xadara bi waxoon ko ñun tuddeewul la gàmmu gi ngir nga def ci dara parce que yow def ci xadara bi démb tey soog di ñëw gàmmu gi moo sax gàmmu mbir na bàyyi daf nañ jox xaalis jox nu ay saaku ceeb jox nu lekk waxuma la nag suñu gàmm waxuma la nag suñu leedu xadara yi nuy def daf ci jàpp magu yaasira la ñëw bokk ndey ak bàyyi mënoon naa gis loolu waaye day jàpp ci xadara bi di jàppale mbokk taaliba yi képp ku mu xam ku baax mu indi ko ci xadara day indi ay nit ñu nekk ci xadara ba di leen présenter sëriñ bi kooku ku baax la loolu rek moo waral ñu tuddoo ko bés bi loolu rek moo waral ñu ñu ñu ñu ñu jox ko bés bi parce que dafa sopp xadara bi te ku sopp xadara bi ñu sopp la ñun nag suñu xadara mooy Mawlana Cheikh Dem kooku mooy suñu xadara moo tax gërëm nañ ñëpp kontaan nañ ci ñëpp képp ku fi teew kontaan nañ ci yow kontaan nañ ci mag ñi kontaan nañ ci ndaw ñi kontaan nañ ci góor ñi kontaan nañ ci jigéen ñi kontaan nañ ci ñëpp ñu fi teew ñu ngi gërëm bu baax ñëpp ñu fi teew gërëm nañ ñëpp sëriñ bi dafa am benn téere boo xamante ne nii da ko doon waxtaane jamono jee ci xadara ba mu boobu ci lan def mboolem saaba yi àndoon nag Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bi mbokk taalibe wax daane ci xadara bi ñu ne dañ koy jënd ci gàmmu gi ñu jox ko cadeau benn mbokk bu dëkk ci xaar mu ne moom ko kenn moom moo koy génne ci xaalisam mu jënd ko cadeau moom moo nekk nii dañ koo bëgg a jox Baye Ousmane mu joxal ko Mawlana ndax moom téere rek la bëgg tudd yàlla rek la bëgg topp yàlla rek la bëgg xam-xam rek la bëgg nit ki fuglu xam-xam rek la bëgg sell la bëgg ñun ñoo sellut waaye moom sell la ni woo ñun ñëw deddut waaye moom ci seet la ñuy woo tudd leen yàlla ci la ñuy woo jul leen ci yéen daal sallallahu alayhi wasallam ci la ñuy woo topp leen Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ci la ñuy woo topp leen seen sëriñ wan fenn ñunu léeg leen laa bëgg sama sëriñ rek laa bëgg ci loolu la la ñuy xeetal ci loolu rek la ñuy wan waaye nag ñun gërëm nañ ginnaaw bi ñu yàlla booleeg moom yàlla boole na kenn ku nekk ak imaamam waaye gërëm nañ yàlla bi mu nu boolee ak moom bu waxee ñu xam ne borom xam-xam la bu doxee ñu xam ne borom xam-xam la ku mu jëflanteel ñu xam ne kii borom yar la loolu rek doy na sëkk même bu amul xam-xam yar bi rek doy na munoo yare te yaruwoo munoo set te sangu munoo sang kenn te setoo loolu munul nekk ci alam bi ñu ngi sant ñu ngi gërëm allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wa salli ala sayyidina muhammadin alfatixi lima uxliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى على الختم والكتم أبو الأباس شيخنا عمر التجان شريف رضي الله عنه وأنوار سره وباطن شخصيته سحادة الأنام إجاب الأعظم مولانا الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم نيس بوكي ginnaaw bu ñu sante yàlla buur bu màgg bu foor bi nga xam ne moo ñu demee moo ñu ñëwee fii may ñu xewal xéwalal ñu ñu mën a fekkee jotaay bi jotaay bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel sangu-sang yi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi nga xam ne yàlla wax na su ngeen bëggee man ma bëgg leen man yàlla bëgg leen yonent bi sallallahu alayhi topp leen ko xul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni bi yuhbikumullah kon ñu ngi sant yàlla ci teew bi ñu teew fii di julli ci di gërëm ki nga xam ne mooy suñu imaamu tarixa cheikhana ahmada tidiane sharif radiallahu anhu nga xam ne wax na lépp loo xam ne dégg ngeen ko rek ñu ne ci man la tukkee wala man maa ko jëf peese leen ko ak mandax ak charia isa samixtum anni shay'an fa zinahu bi misaani shar'i fa ma waafaqa fa xuzuuxu wa ma xaalafa fatruku kooku nga xam ne moo ñu fond fondamental tarixa bi nga xam ne yonent waxoon na sallallahu alayhi wasallam lépp lu ñu sos ci ginnaawam rek loolu réer la lépp loo xam ne tamit yokk nañ ko ci diine gi rek ci ginnaawam loolu réer la ñu sant yàlla ba mu ñu boolee ci tarixa boobu dellu di gërëm jekk fas rafet kaala boroom dënn bu yaatu bi Baye Barhama Abdallah mi nga xam ne moo ñu jële ci bokkaale yàlla delloo ñu ci Abdullahi yi nga xam ne moom la nekkoon fële ca alamul arwaax ya ñu sax nekk di Abdullahi suñu dund ba ba ñuy dee ci lañuy dund ci lañuy ñuy dee ci lañuy dekki kon alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ci loolu ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di jiital ci nuyoo bi suñu sang suñu sëriñ Mawlana Cheikh Abdou Baaxi Dem nga xam ne man maa ngi juddu ci ginnaaw Thierno Assane Dem waaye dégg naa ay xibaaram dégg naa ay xibaaram nettali nañ ma ay xibaaram mu bokkoon ci jàmbaari baay yi tey jii bu sirroom ñëwee toog fii kon dafay mel ni gis nañ ko rek ci suñuy bët ñi sant yàlla ci taxawaayam ndax comme waajuram ci lii la doon yëngu mu def guddeem yëg yëpp ak bëccëgam yëpp mu nekk di yëngu ci li baayam doon yëngu kon donn na baayam ci zaahir ak ci baatin ñu ngi sant yàlla ci loolu di teg ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu sang Cheikh Baye Ousmane Dieng Saala nga xam ne liggéeyam kenn dootu ko laajte ndax dégg nañ ko fu nekk bu fekk ne liggéeyalutul Baye duñ ko duñ ko dégg siiw na ñëpp xam nañ ko loolu liggéeyal baay moo ko may kon baay bu doon buy dox la ci kaw suuf ñu ngi koy ndokkeel ci jotaay bi ci buntu Cheikh Baye Demba Sy nga xam ne tey ji lii yëpp ñu war a ndokkeel Cheikh Baye Demba Sy ndokkeel yooyu yëpp ci moom lay dellu ndax moom mooy sëriñam kon nekk na baay buy dox waaye loolu mun nañ ne lu yomb la nekk baay buy dox xëy na mun na yomb waaye nekk baay buy dox ba pare di defar defar ay baay parce que ku xool baay Demba Sy di nga xam ne li ñu koy wax baay duhut rek euh, jëmmam ji la xool rek ne ko baay waaye daf ci dox sàkk ko dégg nga di liggéeyal laa Cheikh Ibrahim fii nii ci Mbuur liggéey bu rafet ñu koy sant bu baax di ko gërëm. jërëjëf Baye Niass jërëjëf Baye ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi di gërëm suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane ak di Cheikh al Islam Mawlana Cheikh anhu ñu ngi nuyu ki nga xam ne moom mooy taaru jotaay bi di kilifaay jotaay bi di suñu sëriñ suñu sang Seydi Mawla Cheikh Abdoul Baqi Cheikh Assane Deme ak mbollem njabootu mola Cheikh san dem ñi nga xamne ay goor ak jigen mu ngi dënd ak moom Seydi Chouara ak Seydi Ali Tamasini ak eh, soxna yi nga xamantene ne na ci fa Seyda Fatima Zahra ak ñi andal ñep ñu ngi tok ñu ngi leen di gërëm bu baaxa baaxa baax ñu ngi leen di ñaanal yalla seen teway ak seen taral bi nyutaral ñu taral jotaay bi de nga ak li nga ñu xeñalal jotaay bi de nga xetuk maulana Cheikh ak xetuk maulana Cheikh al sandem

ñu ngi koy gërëm ci taxawaayam dégg nga mooy suñu chebatul xam di mus ta noppalu waxtu nekk rek foo ko fekk mu ngi ci waar ci liggéeyal sëriñam Mawla Cheikh San Dem yal yàlla mooy ko gudd fan ci barke Baye. ñu gërëm suñu sëriñ Baye Ousmane Dieng moom itam ci taxawaayam bu rafet comme ni ko nit ñi waxee yépp itam mu faral di ko waxee moom dégg je suis de tous les temps de tous les cieux loolu nag euh, yàlla wone na ko ci jëfam ci liggéeyam. ci fu nekk yaa ngi dégg ci ci ci ci ci alam bi ñu ngi ko ci gërëm bu baax ñu ngi ko ci ñaanal yàlla dégg nga yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla yokk ko yal na yàlla barkeel njabootam mu ngi ànd ak suñu yaay Seyda Aïchatou yal yàlla yàggal ko suñu kanam ak rakkam itam dégg nga di suñu goro eh, moom itam yal na yàlla fayanteeg moom ci lu baax ñu ngi gërëm sama sëriñ nga xam ne moom ma yar di Seydi mam Malik si ak njabotam ñep tew nañ bokk na ci eh, eh, soxnam ñaari soxnam Seyda Ana Kunta ak Seyda Mariam si ñom ñep tew nañ yan yalla fayante ñom ci lu baax ñi ngi gërëm itam eh, sama mbokk ñi nga xamne ñu won ñew nañ massivement comme niñ ko daan faral di defee suñu nekké fi di gërëm di lim danaka guddigi demna su bobay itam gamu gi gàmmu ngërmandi rek lay doon waaye dinañ lim ñenn ci ñoom ñoo xam ne da nga ñëw nañ ci délégation bi di samay nijaay ñu baax kenn ki tudd Abdou Sy kenn ki tudd Amady si ak Amady Sy boo xam ne sama mag la mu ngi jóge ba Gàmbi ànd ak magam bu jigéen di Zeynabu bu si na yàlla fayante ñoom ci lu baax ak suñu mag suñu xalifaay kër di Amadou si xam-xamam bi muy nangu di partager jaamu yàlla yi waxtu wu nekk ñu ngi ko ci gërëm diko ci ndokkel diko ñaanal yalla ñu ngi gërëm kim Andal di cheikh eh, pap Alioune sek nga xamne ne bu goor mo fi njëkk samp keur Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu yaakaar sax Cheikh ibrahim musna ko fi setti si kon ñu ngi koy gërëm moom mooy njaatige mbollem de nga talibé bayyi fi té mu ngi dox dox bu rafet ci digënté talibé yi ñu ngi koy ñaanal yalla yalla yalla fayante mom ci lu baax lolu ñu ngi gërëm itam suñuy goro ñi nga xam ne ñoo ñu may soxna ñoom ñëpp teew nañ ndax lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon la euh, beneen bi mooy ñu ngi gërëm suñu marraine bi nga xam ne suñu goro la suñu magu soxna la ku baax koo xam ne ni ko yamar waxee tuddewuñ ko ko ngir alal waaye dañ ko ko tuddee rek ngir jëfam bu rafet ak jëflanteem bu rafet bi mu jëflanteeg mbokki taalibe bi ak xadara bi yal na yàlla fenteeg moom ci lu baax ginnaaw loolu euh, sëriñ bi ñu ngi kontaan bu baax beneen yoon ci mbokki taalibe yi mbokki taalibe yi taxaw nañ taxawaay bu rafet ren ci gàmmu gi euh, kenn ku nekk ci ñoom jëf na sa kémt lay kàttan am na ñoo xam ne kenn ci ñoom moo sasu tànt bi yëpp ak chaise yëpp kenn ki ne man jënd naa nag ñaari saaku soble ñaari euh, euh, saaku pomme de terre keneen ki ne man sasu naa nag keneen ki ne man sasu naa nag nag yooyu yëpp def nañ ko am ñoo xamante ne jënd nañ ba jënd gëléem ñu ngi sant yàlla ren mooy suñu at boo xamante ne gëléem wàcc na fii ci suñu gàmm gi ñu koy sant yàlla bu baax di ko santee suñu ñaanu sëriñ sii nga xam ne waxtu bu nekk ñu ngi ñuy gunge wax naa fii ci ngoon ñun duñ ci dara li Baye waxoon taalibeem bu nekk donte benn yoon sax war nga mën a seeti cinéma loolu Baye lim ci jublu woon rek mooy nga dox ci ngir nga ràññee ci yàlla nga xam ne mëdët duut ci yow nga lay jóge ko waaye mu ngi jóge ko ci ki nga xam ne mooy kaamilu asrihi te mooy Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu moo ñuy tëbb loolu yëpp te mboolem mëdët yu jóge ci bàyyi ñu ngi jaar suñ sëriñ si ñun balaa ñu ciy jot yal na yàlla fayante ñoom ci lu baax ñu ngi gis waxtu nekk ñaan yi ak ndollali yal na yàlla eh, eh, eh, taxaw leen wala yàggal leen suñu kanam waaye ñu ngi laaj ndollal itam ba léegi beneen bi mooy li ñu wax ci rajo Dunia rajo Dunia ñoom ak mu jot ñooy publicité suñu suñu gàmmu gi bu desee deux semaines ñoom ñoo koy jàllale te ñun mosuñu leen fay dërëm wala boog benn mbokk taalib moo fa nekk moom moo ñu fa wutu rajo du naa nag ñun yàgg nañ ak moom suñu njëlbeen fii ci mbuur mus nañoo ñëw ci ñun def ak ñun benn émission euh, fekk na am na benn mbokk taalib boo xam ne ci weeru koor mu sóobu ku jigéen la bam sóoboo mu ñëw ca kër ga mu fekk fa benn moktaal bu góor boo xam ne woorut mu dem dellu seen kër ne yaayam waa kër bay dem ba si kenn woorut yaay ji moo nekkoon présidente fan sa club rajo dunia mu dem woo rajo dunia ni leen kaay leen am na sëriñ bu fi nekk mooy wax xale bu leen julli bu leen woor mu ngi fii ci dëkk bi ñoom ñu ñëw man yëguma li xew guddi ñu ngi def guddi ajjama ba noppi rek Eh, kenn ci ñoom journaliste la mu ñëw di ma interview naan ma yow li la feeñu fan nga ko jëlee man ko yow lay wax man lu ma feeñu man taal <laughs> jullit la taalibe Cheikh Ibrahima laa dara feeñuwut ma mu ne ma waaw dégg naa am na looy xam le ma ne bu dee xam yàlla moom xam yàlla dañ koy xam ku xamut yàlla perte nga loolu bàyyi ma ko wax fa man lam yanal maarifatu rahman wa amaaruhu at ma de zaman kon noonu laa waxee ak moom mu dellu ci mer bi ne ko xale bi ma gis baleen ko kii ko jubla kii dafa am lu yàlla def ci moom waaye rajo duniyaa boobu bi mu publicité loolu ca aljuma ja lañ ko teg ma jékki-jékki ba gis ay yenn mbokk taalibe bi ñëw ne ma ah rajo duniyaa daal teg nañ ne am na sëriñ bu nekk Grand Mbour mooy dajale xale yi naa leen bu leen julli bu leen woor loolu nag ñenn ñi jël message boobu véhiculé ko di wax lu nekk loolu oustaz Fall mii mat na ma ci seede ndax bi mu déggee loolu jël na téeréem ñëw ba kër fa ba ma nekkoon te kër gañ nekkoon sax booba kër gi àggut amut bunt amut fenêtre ay birig lañ dajaloon birig birig ya fa desoon lañ dajaloon moo nekkoon lal bi tey basan lañ fa laloon te basan bi sax foofu dafa am yu ci bënn jërëjëfe Baye Niass loolu nag mu ñëw defal ñu man fekkut ma fa jour boobu waaye fekk na fa mbokk taalibe yi defal leen waxtaan ak ñoom dégg nga rajo Dunia boobu tey mooy jàllale suñu émission rajo Dunia boobu tey mooy publicité suñuy mbir loolu ñun ñu ngi koy sant yàlla te at Dunia moom mooy yàlla dégg nga ad dunya ahlu dunya dégg nga boko ko 132 la lay jox te 132 ñaari allahu la dégg nga ñun ñu koy sante yalla bu baax biñu yalla publicité ñun ay julit lañ dañuy julli dañuy wor te duñ moy yalla ki nga xam daawul ñu fekkon ko fa ba léegi du wor ma nga fa koor bu du wor parce que dafa am ulcère te alquran moko maye man kana maridan aw ala safarin loolu kay ku nekk war ko jang du dañu dajé ngir yak ben xalé waye dañu dajale nit ñi ngir yak jubal len ñu aw ci yoonu njub baay mo doon wax ne wa man qala qad adlaltu fal haqu shahidun bi anni ma ribtu juhadi ba mu ne kep ku wax ne man ma ngi reral nit ñi mu ne man deug sédel na ma ne man duma ku réere yoonu yoonu bi sallallahu alayhi wasallam sallam mëno nekk ci yoonam bu nopi di reral nit ñi ñun ñu ngi sant yalla ci lolu benen bi mbokk talibé yi eh, ñom dañ ma jitu ñu defal ma cadeau ma ngi leen di gërëm ci lolu cadeau bi rafet na lool waye man dama leen tanalon cadeau xëy nak ñom seen cadeau mo upp doole sama bos Denga nga ma ndax dina mën feñal sax samay bos ndax euh, ci jëf yi nga xamantene euh mom lañ jëf ci gam gi ak contente bi nga xamantene amna am ko itam ci gam gi dinañ jox Baye Ousmane mu joxal ñu kaddu yoy non ci lu gaaw parce que heure baangi dem te sëriñ bi warna na jël kaddu ci lu gaaw ndax dafa am thème buñ ko jox bu am importance bu mu ñu wara a waxtaanal la dinañ ci euh Seydi Yamar ñaan di mbokk bu baax ku taxaw ci gàmmo gi def ci mbooleem dégg nga kattanam mbooleem dooleem dégg nga ñu ngi koy ñaanal yàlla eh, yal na yàlla fayante moom ci lu baax yamar demal sëriñ bi jox la sa kado ginnaaw yamar ñaan dinañ ci teg Pape Saliou Tine moom itam mu nekk koo xam ne dégg nga ku am yitte ku baax la koo xamante ne itam dégg nga sasu na ci sasu yu rëy ci gàmm gi ba mën a réussir nii ginnaaw eh, Pape Saliou Tine dinañ ci lim itam bàyyi Samba Ngiraan kenn la ci muqaddam yi nga xamne ñu ngi ci hadra bi dekk ba futa muy liggey liggey bu rafet di yaatal faydu fofu itam mom itam mu dem serigne bi jox ko cadeau waye dinañ jox itam Seydi Mouhamed Sow mi nga xamne mbollem luy walu information ci hadra be yi ci doxal yépp mom mo mo ñu ci taxaw dengati te alalam itam du ko fekke waxtu nek dafa yëkëti alalam di ko dugal ci hadra bi ñu ko ñaanal yalla yàlla fayante moom ci lu baax ginnaaw loolu dinañ jox itam cadeau eh, suñu xarit suñu wëllëre koo xam ne at mu jot dégg nga moom fii lay taxaw yoral ñu micro central waxal ñu wax yu neex ba lenn ci suñuy sëriñ xam nañ ko xàmmee nañ ko bu baax dégg nga di mooy Cheikh Ibrahima eh, Diouf moom dinañ ko jox téere fi Riyaadu tafsir bu bàyyi ak benn eh, garam boo xamante ne ñëwoon nañ ko itam ngir jox ko. mu dem sëriñ bi ñawal ko loolu noonu ginnaaw loolu ñu ngi gërëm mboolem ñi fi teew sëriñ bi tànt bi bu feesee man tara bi yow moo ñëpp déedéet ñi fi gën a ñi ci ñi fi ñëw ñu bëree bëri ay invité lañ te dara indiwul leen fi lu dut jëmmi Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi moom moo leen fi dajale kon ñu ngi leen di gërëm fu nit mën a jóge ko dawaayir yi nekk ci mbuur muqaddam yeeg ñëpp ñëw nañ gis nañ leen seen teewaay bu rafet yal na yàlla fayante ñoom ci lu baax ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu li may dénk sama bopp nag di ko dénk mbooleem jullit ñi mbooleem àddina bi mooy ñu góorgóorlu ñu daw jëm ci Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu Cheikh Ibrahima mooy jëmmi ngëneel Cheikh Ibrahima mooy jëmmi texe Cheikh Ibrahima mooy jëmm joo xam ne dégg moom mooy sobi àddina bii maam Malick Thiam waxoon ku bëgg a ci. Eh, eh, eh, gàcceeg àddina bi ak jafe-jafe àddina bii ngel na nga dem nga nga nga nga nga ci ci yàlla te loolu kenn yorut bunt boobu tey ku dut dégg nga Mawlana Cheikh anhu ñu ngi koy Saliou Diop Saliou Diop moom itam kaddoom mu fi fu mu nekk rek na ñëw jël si ko ak Mbaye Babacar ak Baye Bàcc Sakho di wax rek mbokk taalibe nañ gorlu bu baax ci liggéeyal bàyyi bàyyi mooy aji matuk jamono bàyyi moo wamat nit ñi tey jëme leen ci yàlla te loolu lañu ñu yonent bi waxoon yonentu waxoon na ne jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah muhammadu rasulullah te xam ngeen ne loolu ki ko wax beesal suñu ngëm mooy Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu baay rek moo wax ne fa qultu la ilaha illallah muhammadun arsalahu ila fa faada minni sirruhu fala ahad yaqsudu ni ma arafallahu samad man maa wax laa ilaha illallah yàlla moo yónni yonent bi mbootu yàlla ba bey ci man kenn du jóg jëm si ci man lu dul dinaa la xamal yàlla kenn ki ñu ngi koy sant yàlla di wax itam ne bàyyi waxoon na ne wa sirri saraafi xaafiqayni wa uqimat shuyuxun alaw xatta yaxula jaridu bàyyi mu ne sama mbóot dina daw ci ñaari xibla yépp pen koo xarfu yépp sama mbóot dina ci daw mu ne waaye dina jaasir dégg nga sëriñ su mag si dégg nga bakkaru yàlla di bu wal bufta bi ñoom ñëpp dinañ jaasir góor bu ñu ko waxee dina jaasir xam nga ne góor du am doom waaye dafa am lu bàyyi bugg junj mooy lan kenn du àggale te tey ci yàlla yaa ngi dégg lu dul Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu moom rek mooy àggale jaamu yàlla ci zaatul ilahi kon nañu wax jërëjëfe Baye Niass man loolu moo nekkoon sama message bu may lancé ñu ngi gërëm mboolem ñu fi teew nag. sirri zaati. وعين الذات وسر الموجودات وروح الكائنات من لا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده ولا وجود إلا وجوده صلاة تعرفنا بها إياه وتلبسنا بها ملابس الرضا والقبول والعز والاعتزاز وتجعلنا بها ممن يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين بالأباريق وبالأكواب وبالأكوار ورضي الله عن شيخ الختم الكتم أبي العباس شيخنا ومولانا وسلتنا إلى ربنا شيخنا أحمد تيجان رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن وارث سرهما على الإطلاق تاج العارفين ممد الأقطاب شيخنا ومولانا الحاج إبراهيم يس رضي الله عنه ورضي الله عن خلفائه وعلى رأسهم من اجتمعنا اليوم في ظل حضرته وهو السيد الشيخ حسن دم هو وأنظاره من الخلفاء سيدي علي سيسي وسرين بينيس وسرين عثمان جاي وشيخ عمر توري وشيخ ابراهيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سرين بي عبد الباقي ابقاك الله ظهرا للاسلام وللايمان وللاحسان yenn yàlla guddal sa fan yenn yàlla weer sa cër ñu ngi lay nuyu ci turu ansaaru diin kon turu mbooleem mu xaddam yi nga xam ne ñu ngi nekk département de Mbour di nuyu délégation bi ànd ak yow muy góor muy jigéen ñu ngi nuyu it ki nga xam ne Zul Nuurayni la muy Ousmane Dieng ñu ngi lay nuyu di nuyu keneen koo xam ne soppe la muy Seyd Dramé dalee nekk fi waaye nuyu bi dana ko jot ndax kookoo ngoo koo xam ne dafa jël baay jël muqaddam yépp wàcci leen wàcciwaayu baay nga xam ne boo ko fekkoon kër Seydi Ali danga yaakaar ne ku ko ko yar nga fekk ko kër Cheikh dafa Fall nga yaakaar ne ku ko ko koo fekk ci muqaddam ne nga yaakaar ne ku ko ko yar fekk bàyyi lay xool ci ñoom kon ñu ngi nuyu suñu xarit suñu soppe Cheikh Abdoul Baaxi dañu wax ne li kulli qawmin haadin wa bàyyi leen ba si min al haadin al mahdiyin ñu ngi koy ndokkeel ci bisam bi nit a ngi koo xam ne kii nii ku ko am comme taalibe sant yàlla ku ko amut comme taalibe it bu gis taalibe mel ni moom ngir njub gi gis nga lim fi wax sànq histoire boobu comme man maay président ansaarud lépp lu ñu wax ko ci pays baay bi ak fu munti nekk daf ma jara suma daal dem seet ba xam dëgg la wala du dëgg bi ma déggee loolu ñu wax ko ci rajo Dunia fekk na boobu moom xamaguma ko sax maa laajte ba bañ wax ma fan la dëkk ma ñëw fekk mu dem Kaolack keroog bi may ñëw yaakaar naa ne maa ngi yoroon kaasiful albas moom laa yoroon sama loxo bi ma ñëwee fekk fi taalibe yu yaru yu teggiwunu ma daldi nuyu leen ne leen fii mooy kër Baye Demba Sy ñu ne ma waaw ndax mu ngi ci biir ñëwee déedéet dafa tukki ma ne waaw man de maa ngi Abdoulaye Fall doomi sëriñ Ibra Fall mu bàyyi dama dégg ne mbokki taalibe la nekk fii te mbokki taalibe yi war nañoo xamante loo tax ma ñëw fi bu fexee xamanteeg moom waxuma leen sax li ma dégg ndax xam naa li ma déggoon iftira la ay fen la ay nar la ndax xaal bi ma leen fekkee nit ñi jub lañ et xam ngeen li xew foo fekk njaboot ak baay mën ngaa wax billaahi wallahi tallaahi ñii njabootu Cheikh Tidiane lañ mun ngaa wax ne billaahi wallahi tallaahi ñii nit sun la njabootu yonti yàlla Muhammad lañ mu nga wax ne billaahi wallahi tallaahi ñii hum xizbullaahi ala inna xizballaahi humul muflixuun kon lim wax noonu laa koy dëggalee ma waxtaan ak ñoom ba su waxtaan pare ma dem ba mu ñëwee ñu wax ko moom it ci itteem mu jóg ñëw seet si ma kon nit ku baax ngi nit la koo xam ne kii nii li bay diglé amna ben lettre bo xamné jang na ko ci kérak bi ñi recevoir préfet ci cérémonie officielle samedi passé rek bay mu ngi cey wax ne garantil na len yeen samay kandor yeen samay mbok yeen samay talibé yeen jeunesse bi samay jeunesse garantil na len da ngeen raw sen masse waaye nag am na charte mu tudd ci charte ya al amalu bil ilmi lati alimtumu ngeen jëfee xam-xam bi ngeen xam ne jàng ngeen ko ngeen def ixtifa bi asaaril saalihin ngeen roy jaar ci tànk nit ñu baax ñi bàyyi dem ma mit loolu nekk ndax mun naa ko seede lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci pays bi fii ci ansaaru diin bu dee cotisation moo ci jiitu bu fekkee ne duruus yi ñuy def la di ko def ci jawaay rasaayil dafay laaj jël darsu ñëw fekk si ko mu firi ko fu keneen di firee te li gën a bëri maay firi du ko tàdde kon xam-xam moo ko ñor ñun ñooy ay mbokkam ñun ñooy ànd ndoom billaahi ma su ma ko téléphoné te waxut ma kuppeel sëriñ bi su ma ko wooyee rek li mu njëkk wax mooy kuppeel ma woo la ma ne ko déet ba ma yàqal tiyaaba bàyyil mañ temen suma crédit woo la mu ne woon mukk sëñ maa la koy ñaan ma coupé mu woo day woote ba teg ci crédit gis nga tey jii maa ngi woon na gàmmoo ji ci gannaaw gànjaay Modou Ndiaye bu nekk Fatick taalibe Baay Ibra Fall la mu am gàmm foofu ñu woo ma ko fekkee te bii mooy seen juróom-benneel at waaye comme tombé nag gàmmu Baay Demba Si te daaw dafa tombé woon ak gàmmu Baay Demba Si bu kaw la ma dem fa kon mënuma ko jël ma téléphoné ko ne ko duma mën a ñëw wewu gar dëgg na wewu janaab waaye daaw dafa togg añ indi sama kër te nekkuma fa te noonu defal Pape Seck mii Pape Ali Seck te bëri na mu xadañu xam noonu leen defal tey jii encore noonu la def comme nga wax ne haada naqiyun taqiyun jawadun karimun dañ ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér bàyyi dem ba ci turu ansaaru diin Ali Seck mii comme ni nga ko waxee sànq la baayam nekk muqaddam bi njëkk ci mbuur nekkoon fi adjoint préfet nga xam ne malaan na wasifa fii ci dëkk bii kër baayam lañ ko njëkk lalee boobu ñu ko daan fekkee ñu néew lañ biñ ma afateeg mbuur bi may ñëw suma baay def na ma monsieur Ibra Fall foofu de sa papa fa ku ñuy wax Doudou Seck mu nga fa fekk naa ko Ziguinchor boobu mu nekkoon foofu adjoint préfet mu ne waaye ku baax a ngoog boo demee boo tegee sa bagage demal nuyu jikko ne ko man doom yi yu defal laa rek keroog ba ma ñëwee dem fa noonu boobu la ma jàpp ba nit kii ci la ma jàppee ba léegi kon bëgguma guddal waaye ñu ngi lay seddal ne Baye ba nit ku baax la wax naa ne li kulli qawmin haadin nit ñoo gis rekk am na ku yàlla tànn moo leen gindi àggal leen ci yàlla moom na ci ñooñu la bokk ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ah Serigne Diouf jërëjëf danaa wax li nga wax sànq baa ma ko pour ñëpp la fudda فوق ولا شلت يداك الله الله باي الله الله الله الله باي الله برهما الله الله الله الله الله الله باي الله برهما وإنك لعلى خلق نسيم وإنك لعلى خلق نسيم يا الله كن جك تجكوك إبراهيم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يا الله كجيت للبوبم كوكو إبراهيم faasam yu jëkk yaak ndagam lu tey la faasam yu jëkk yaak ndagam lu tey la mandu gaak tabe gaak kokoy barhama allah allahu allah allahu allah allah bay allah barhama allah allahu allah allahu الله الله الله الله الله باي الله برهام الله الله الله الله الله فاسم يجك يا نغام لتين faasam yu jëkk yaak ndagam lu tey la mandugaak tabe gaa kokoy barhama allah allah allahu allah allah allah allah allah allah allah allah allah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 بالله بايع باغ بالله بايع باغ بالله بايع باغ بالله بايع باغ moom ku ko bëgg الله الله الله الله الله الله بالله بايع باغ والله بايع باغ wallaahi baaya baax wallaahi baaya baax moom ku ko bëgg baax kookoy barhama alaalaahu oh, oh, man boo laa pare ci gàmb gi wax ñu ci Ismaayil ne moom siddiq la nebi la te daf daan digle lu baax di tere lu bon mo nek ci bi moy ñoñ jotaay bi ñu ne fofu lay yem mu jangal ñu qul yaayul kafirun motax ñu bari xejoowuñ ñu ci ñun ñu xejoow ñépp walakin lakum diinukum waliya yadin ay yoy sëriñ bi bu ci yemon rek guddi gi na ci yem te xamne ne gi pare na ma lima yalla dimbalé moy ku jël kaddu li ngay jël rek mën naa cee jël togg yàq mu neex waaye bàyyi ko moo gàmmu-gàmmu gi su fekkee ne dégg nañ li ci des ay ngërëmaane rek la nekk biñ paree xule ay ko mu jàngal ñu suratul isa ja nasrullahi waaw muy wàcc gi bàyyi wàcc ci jamono saan takkusaan saan ci wolof mooy ñibbisi leen Burkina Faso ñibbi si len seen kër bay rab yeb buñ xeyé xëyee wëtti bu sakku sañ jotee dañuy ñibbi yonent ñëw na fajar dafa xey liggéeyloo ji dafa xeylo nit ñi cheikhou tidiane ñëw digg bëccëg xonq coy dafa wax nit ñi ne nañ nango liggéey liggéey bu tang bay daf ne len lek ñibbi ñibbisi len ngeen ñëw mu takku san la ñëw lillahi wa rasul senegal xepp len seen bëdi ngeen xool jotaay Cheikh Ibrahim ci jamono jii kuy jullit war nga koy foglu ay ndaw rekk ngay gis yu fàtte àdduna won ko gannaaw donte seytaane ngi dox li muy dox di lijjanti li muy lijjanti ngir delloo lislaam gannaaw bàyyi moom ma nga xëcc lislaam jëme ko kanam rek nda waxu na ne gis na ëllëg senegal ñu nekk ci yoon yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa te lii feeñal na ko lan mooy Sénégal mooy ndaw ñi la mu yonte yàlla Muhammad mooy yoonu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ndaw ñëpp walbatiku nañ jublu bàyyi te yàlla nañ ci fekk lañu wuti woon te bàyyi dawul kuy wore waxul kenn dinaa la jox dafa wax ne ku ma bëgg rek jot nga sa càkkutéef te bëgg bàyyi mooy nga bëgg yàlla mooy nga bëgg yonent mooy nga bëgg Cheikh Ahmad Tidiane mooy nga bëgg sa bopp Cheikh Ibrahim dafa bëgg boppam daf ñu bëggloo suñ bopp parce que bëgg sa bopp mooy bëgg sa sa sa cosaan te suñ ciosan moy yàlla subhanahu wa taala fofu lañu baye yóbbu wawul kenn ci bopam waxul kenn ku gën moromam inna akramakum inda allahi atqakum lol alquran moo ko waxon yagna waye waaye daawuñ ko dundé do ko gëm mukk lu na ngaa ñëw ci hadra Cheikh Ibrahim ci nga xamne nek deug deug deug ki gën ci yéen rek moy ko gën ragal yàlla ñun li ñu dimbale moy kenn ku nek bo gisé sa morom da ngay yaakaar ne moo la gën ragal yàlla motax ñuy siyaré wante waxna fi tay ci ngoon mané ne yonent na ay sahabam ne yomal xiyam dana am ñoo xam ñu ngi kerloo ci ron yonti ci ker ak yàlla ga ba sahaaba yi ak sohadaa u yi ak anbiya ak mursalin yi leen ñee te ñooñuy bokkuñ ci boobu rang biñ ko laajee yonent bi daf leen wax ne mooy gaa yi nga xam ne dañuy bëggante te yàlla tax te loolu ñu ngi ko gi ci xadra al ibrahimiya bii yal yàlla jàppaloo ñu ko te xam ne mooy si njariñ bàyyi Dramé sama sang dafa ma mus a wax ne dama ko mus a wax ci affaire yi ni ma gisee Sénégal ni ñu bàyyi gannaaw dafa ree mu ne sëñ Ousmane sëñ Ousmane rek la may wax mu ne ma sëñ Ousmane mu ne mu ne ma Sénégal wanuñ gannaaw bàyyi bàyyi lël na leen ba pare mu ne mag mu xiif liggéey ba sonn ñu tegal ko ceeb bu neex mu ñàkk ba loxo bi fees muy mar gannaaw loxo bi lan ngay xalaat ci tibb boobu ndax dina rëcc ma ne ko déedéet mu ne dafa tibb senegal ba pare di wër li ko mar di di mar li ko wër te mooy li wër Sénégal li wër aduna bi yépp foo dem da nga fekk dafay mel ni bàyyi rek mooy sëriñ moom lañ xam doo fa tudd keneen doo fa wax keneen kuru Cheikh Ibrahim demal Darfour demal Ghana sànqar yaa ngi dégg benn Ghanéen man nga dégg yeneen daayira nag waa Sénégal ñoo fay dem def sos fa ay daayira waaye da ngay dem ci géew Cheikh Ibrahim waa dëkk ba ñooy mab wut ci bàyyi di ko barkeeloo ñée ngi doxee Nigéria di ñëw Medina Baye ñii di doxee Gaana ñii doxee fu nekk ci àdduna bi lan la ñuy wër si Cheikh Ibrahim bu yàggu rek tukki bi xalifa bi def ci Mauritanie defe naa ne ñaam bët te am xel dégg nañ ko shérif yi ci boppam ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee shurafa yi ñoom wax ne liñ gis ci baay gisuñ ko ci seen ndey gisuñ ko ci seen baay gisuñ ko ci seen maam kan mooy seen maam muhammad rasulullah sa alayhi wasallam li waraloon sayful xarani waxoon ne yéen gisuleen ci yonent bi lu takk ndeeram kon sët yooyu seen takkandeer yi maam rek lañ gis moom lañ xamoon xamoon kañ mu kañ mu dëgg-dëgg jëmm jëmm jooju nag su ngeen ko xamee su ngeen ko réere mooy Cheikh Ibrahim yal na ngeen ko gëm te ko te topp ndax ci ngeen di seen càkkutéef Baye Ablaye Fall maa ngi lay gërëm bu baax a baax maa ngi gis maa ngi dégg maa ngi xeñtu bu baax a baax tée gi nga téye ansaaru diin tarawat na goxu mbuur bi ak ni nga téelee loxo bàyyi demba ak ni koy jàppale kontaan nañ ci bu baax a baax bàyyi dem ba nag wax dëgg yàlla bu fekkee ne tiisal nañ ko mu dellu gannaaw ci lim nekkoon dafay wenn kon nekkut sama dom man saara bu may soog a commencé ñetti téeméeri yet uton utoon tudde ahlu badrin boo ma makai ma xeexe yow su ma man kenn du am perem di kota am or nga ne buku nëbb ko du ma ko def bàyyi ma gënal lépp moo ma gënal ñëpp lum la jaral rek jaral na ma lu ko upp waaw bët bu set ñu yóbbu moom police ak gendarmerie ci laa dëkkoon waaw bu bàyyi dara raame waxee ma ne ko noppi rek ñun liñ xamante nañ buñ ci dee shahid ñoom ku ci dee dem safara man aw ma ci lu may daw am lu may dellu gannaaw Baye Niass daal li may wax Baye Demba fekke na ko Baye Ndiaye mi xam na li may wax. 313 bâton laa utoon tudd leen ahlu badrin xar leen rek may jël ñett yi na na na mokk bu ñu xëyee yeew ñu yóbbu ñu police lañ ñu yóbboo buñ ko waxee ba pare buñ pare rek ñu ne dem leen ngi ñib ñib mujj ñu ne dama am xam-xam. damay liggéey waa police yi liggéeyuma leen dama ànd ak ki mata àndal moom alam bi di ko doxal te xam ne man nekkuma ci ay caaxaan su fekkee newuñ ci dëgg yàlla nañu yàlla xalak su fekkee ne nekku na ñun rek a nekk ci dëgg yàlla nañu yàlla xalak ku ànd ak ñun nekk ci caaxaan yàlla na la yàlla xalak lislaam doo dara lu dul xàgg ci yàlla loo mën a am tàggoo ci yàlla amoo amoo lislaam wala boo amuloo ihsaan mun nga am imaan mun nga am eh, mun nga am islaam mais mënoo am ihsaan rafetal jëm ci yàlla moom bàyyi koy maye. wax naa leen fii ci ngoon ne leen alam bi li ngànk diine yonent yàlla muhammad la Chama Tidiane Mawlana Cheikh Ibrahim abul basar asaani mii nuux ñetti doom la fi bàyyi muy haam ak saam ak ak yaafis ñetti doom yooyu ñoo ñoo ñoo jur li fi des ñetti doom yooyu ñoo jur li fi des doom ju ci nekk jur na ñetti xabila xabila yooyu benn bu nekk jur na ñetti xabila looloo waral nit ñi bari askan yi bari waaye ñépp ci benn bay lañ bàyyee ko te mooy malaw la ala te mooy xaqiqatul muhammadiya xaqiqatul muhammadiya boobu nag pour nga dellu ca xam ko ba xam sa cosaan jàppe sa morom ni nga jàppe sa bopp loolu fokk nga naan ci bàyyi boo naan ci bàyyi mënoo ko xam askan yi dañ daan xeebante soo demee ci Nigéria ak awsa yi katakolle jarme yi dañ daan bañante léegi xàmmeetuñ ku góor la wala ku jigéen la askan bi la bokkul askan ba la bokk soo demee Medina bàyyi ñëpp mbokk lañ réew mi bu fekkee na am nañ xel war nañ xam ne suñu waxee mondialisation dëgg dëgg dëgg dëgg mooy Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim mooy mooy mondialisation suñ bëggoon àdduna yëpp daje nekk benn am jàmm nañ daje ci loolu dafa am benn xawsa bu ñëw kër Baye Dramé Medina. mu nuyonte ak ñoom pan maa ngi toog mu làkk Dramé ne ko ndax Sénégal léegi wax nañu alhamdulilah ñu ne waaw mooy ndax sant nañ yàlla mu ne waaw mu fëgg dënn bi ne alhamdulilah ndeke moom alhamdulilah yi ngi wax ne moom la Sénégal sant yàlla mooy ndax Sénégal léegi ñëpp taalibe Baay lañ Baay Dramé ne ko déet ba léegi nag ah am na yeneen xadra yu kii mu ne bokkuñ ci Baay mu ne mu ne kon sant gu leen yàlla su ngeen santoon yàlla yi ñëpp dangeen ngeen nekk ay taalibe Baay loolu nag moom ah lam wax lam xam wax ko moom moo xam dem naa Makka toog ay nit yoo xam ne ay turk ay turk lañ dëkk moo xam leen taalee bàyyi laa ñu may wokkante am naar mënut a jëw daf ma laaj ñaata avion nga am man ko awma sareet sareet awma ko nga may wax avion ñu ree mu ne est-ce que kon yow taalibe bàyyi nga kon ci laa soo nga xam ne taalibe bàyyi ko boo ko nekkee sax danga nga war ma am dara danga war a rafet dañuy wax ne tiijaan lu mu ñàkk-ñàkk fay da war naa am kurus gu rafet mbub mu rafet jabar ju rafet ah? wax dëgg yàlla kon li ma gars yi junjoon ca Makka ne ma boo nekkoon taale bàyyi ndax am nga avion ndax am nga li ndax am nga la ma xam ne kon ñun yeewu ñàkk ku yeewu ñàkk na ngeen xam ne alam bi duñu am jàmm lu dul dañoo dugg ci lislaam lislaam duñ daje ci bennoo lu dul dañoo nekk tijaan ya tijaan yi du jot seen càkkutéef mukk lu ñoo ànd ak bàyyi loolu moom maa leen ko wax fii ma dund ma dee wax naa ko te dina am alam bi àdduna bi du am jàmm du am jàmm loolu ne ñépp dañoo nekk jullit jullit du ànd nekk benn mukk loolu dañoo daje tarixa tijaan tarixa tarixa boobu itam duñ ci jotee seen càkku téef mukk li ta waral tarixa bi jóg loolu dañoo ànd ak Cheikh Ibrahim maa leen ko wax kum neex teel kum neex kum ne kum faman saa yu'min waman saa kum neex nga gëm kum neex nga weddi ndax moomuma nit ñi te ñëwuma sax taxaw pour jëm na moom waaye faaw ma wax leen li nga xam ne moom la may yàlla def ci man te ma war leen ko wax te muy dëgg jóg leen ngeen fekk Cheikh Ibrahim ngeen mucc ci seen dund ngeen mucc ci seen dee loolu la ko fi yàlla inde miracle Cheikh Ibrahim mooy alquran te alquran moo koy firil alquran oustaz ju wax na ne fukki firi na alquran fukki weer fukki at ak ñaar ci ci marsa la amee fathu fanaaw mu jëw lu dul kaay la ma firwaatee leen alxuraan la ma doon wax demewut noonu ni mu waxoon sax man rus naa ko wax ci ci rajo bi mu ngi noonu toog daaw dafa ñëw fi mun ne sama waxtu dafa lakk ma ne ko billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa barke Seex Asan Dem danaa fi ñëw déwén danaa la fi fekk kenn du manqué mu ne ma ne ko boo boo ñëw fi oto ngay indaale mu ne tàll ma loxo tàll ma nga ñaana ma ne ko ñaanuma tus man sequma yàlla di ko ñaan lim yor ma lim yor ñoo ko bokk te ciy jël rek ma jël ci suma donc yàlla wërsëg da ko teg sa kanam nii rek may la ko di aaye la ko da ko teg nii rek soo soxlaa jëlal waaw su sa wàll jeexee nga dem sa yoon boo fi nekkee di ñaan nag tegal lii xa ngeen naaru ganaar du du lekk dafay togg rek teg bu ñu buggee lekk dañuy boo buggee kaay wërsëg bu ngi nii wërsëg mooy lii nga ne fa ne di xaar ku la may fooy amee ñépp ko bëgg koo ne may mu bañ kaay leen ci àddiyee ji ku bëgg loolu million laa soxla daara ji nekk kër Cheikh Assane Deme dañ ko war a defar si Abdoul Baaxi fukki kër ak ñaar dépassam ci loxoom la nekk yor daaru miraay ci loxoom la nekk kër Cheikh Assane Deme ci loxoom la te ma leen di wax ne kuy joxeeti lu jëm kër Cheikh Assane Deme na ko jox si Abdoul Baaxi kuy joxeeti jëm kër Cheikh Assane Deme ko jox si Abdoul Baaxi maa jox boobu ndigal bu fa nekkut lu fa waaye yobot nang ko xar bam ñom ba nga laaj ko bam mu la joxal mako diw dégg ngeen mo bu baax kay lañ ci addi ñaari jooni la soxla mbokk yi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw buñ sante yalla bu baaxa baaxa baax ci jotaay bi nga xamne may nañu ko salihin yeb dajé fi doomi salihin yi dajé fi taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima yi dajee fi ñu fanaane gàmmul yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di liggéey ci tool yi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu mi nga xam ne waxoon na ne yonent bi mooy toolam yonent bi mooy jëndam ak jaayam yonent bi mooy léppam kon su fekkee ne ñu ngi ci tool boobu noonu di ci bay neen sant yàlla bu baax a baax maa ngi nuyu ñëpp nag di gërëm ñëpp di wax ne daanaka fajar jot na liñ fi mën a wax mën naa am du bëri waaye tamit bëri na lool ren laay bàyyi nag di dugal sama man-man ci ni may programme gàmmu gi ndax ren dama ko meraloon bu baax a baax dem ba bàyyi dem ba xam na ko at yi yëpp maa ngi koy wax juróomi at a ngi nii ba bu set mën a ko ren dañuy taal teel tàmbale bu ñëwee rek lu mel nii moo ñuy dal léegi nag génn naa ci ba mu set wecc ndax waa ji waxoon na ma ne ma bokkoo ci te mënoo cee bokk léegi na man lu mu defati rek noonu lañ ko gërëmee min bi fekk na ma solu toog te daf ma jox tem comme que ñun ñu ngi ci daara ji daara ji moom boo ci nekkee da ngay xaw a bëgg tuuti lu ñuy wax gëstu ñu waajal ko bu baax a baax waaye nag amuñ waxtu woo xam ne man ne na génne li nga xam ne moom leen waajal waaye ci biir taalibe Baay wax lenn rek la ci leneen ñi dimbale ci seen dox jëm ci yàlla ko wa taala ay ñoom seen bët yaa ngi dox seen nopp yaa ngi dox seen làmmiñ tamit mu ngi dox yasiruuna sayran fil majaalisi fa ajaban bi seyril juluusi yushbihuna suxuura bàyyi mu ne sama taalibe yi danga leen gis ñu toog séngéem duñ wax duñ yëngatu te fekk ña ngay dox ni nga xam ne noonu la niir yi di doxee ña ngay dox jëm ci péeb yàlla bi tabaaraka nga jëm ci pay bi nga xam ne foofu la dal am foofu la as sakiinatu am waaye tamit foofu la at tumaniinatu am ala bi zikrillahi tatma'innul qulub bu ko defee nag loolu moo tax rek ne dina oyof ci ñun bu fekkee ne dañoo tànt euh, pour tàntal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne def waxtaan wi te fekk temps amut waaye fekk def naa waxtaan wi bu yàgg ndax ku nekk ci ñun rek uutu na keneen kàddu yi nga xam ne jiitu na fi kàddu yu rafet la kàddu yu mat la ba ci ñi wax ci turu daayira bi li ñu wax lépp génn gàmmu wax nañ ci sant yàlla wax nañ ci yàlla boole leen ak jaam boo xam ne jub na tegu na ci siraatal mustaqim ba agsi ci waxi kàddu bàyyi demba gi waaye séeréel ba la nga xam ne xaw fu mu déggee wolof mi nga xam ne moo c'est oustaz Diouf dëgg yàlla wolofam yi seet na waxtaanoom leer na te borom xam-xam la yooyu yëpp am na fi ay kàddu njëriñ yoo xam ne ku nekk mën nga ko yóbbaale ba nga àgg nag ci oustaz Abdoulaye Fall nga koy nuyu bu baax a baax di suñ xarit di suñ wëlëre di ko amee jikko yu tedd sànq sax gis naa oustaz Diouf ne ko Ibrahima mu ne ko Abdoulaye mu ne ko Ibrahima kat la sa baay bëggoon waaye baay moo bëggu Mama Laaj tuddee la Mama Laaj Abdoulaye Baay Ibra doomam yi ku ku judd di góor rek bàyyi la koy tuddee Mama Laaj mi moo ci rëcc moom da ko yàlla ma kii moom sama bàyyi laa koy tuddee kon bu ñu neexee ñu wax na la ñu wax la Abdoulaye Ibrahima wala ñu wax la Ibrahima Abdoulaye Ibrahima ga ca turi Baye Ibra Fall Abdoulaye ga turi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ngi lay gërëm bu baax nuyu Seydou Aliou Seck bu baax moom it di ku baax nga xam ne taxawaay yi nga xam ne yéen a ngi ko taxawu dem ba loolu sëñ Ousmane yëg na ko te ba mu ko yëgee ñu ne tamit dégg nga yëg nañ ko. te loolu moo am solo te wax nga fi ay kàddu yu am solo surtout li nga wax ci Serigne Dramé nga ne kër muqaddam boo dem dangay foog ne kooku ko yar ñëpp daf leen a wàccee wàccuwaayu bàyyi maa ngi ñaan yal na yàlla yóbbu ñëpp ñu àgg ci gisuwaay boobu noonu ak xooluwaay boobu noonu waaye tamit di dund loolu ak gëm loolu buñ ko defee rek dina noppalu fitna yi am ci xadara bi lépp li ko indi moom mooy. kër kër kër kër kër kër kër ñun la ñun la ñun la ñun la te bàyyi loolu la njëkk a dagg ci yow ñu bëgg a nekk rek di sonal suñu bopp moo indi nag ñàkk gi moo indi problème yi parce que ñàkk lu koy indi moom mooy mooy bu fekkee ne yaa ngi xas jaamu yàlla yi bu fekkee ne yaa ngi suufeel jaamu yàlla su fekkee ne sax sa xol bi sax xaatir sax mu ngi dem ci jaamu yàlla dégg nga ne ci lu koy lu koy lu koy suufeel wala lu koy lu ko lu koy yàq loola mën nga cee jëlee tëju wërsëg demee ci ñi jàng xam ne li may wax boo gëstoo ci asbaabu diqu rizqi bokk na ci tooñ jaamu yàlla yi te tooñ gën tëree nag nga tooñ wali yàlla te taalibe bàyyi ku nekk ku yebbu na def ci nànk nga def nànk ci ñoom parce que bàyyi moo wax ne wa asxaru atbaa'i bari'un min ashirki ku gën a tuuti sama taalibe yi dañ na ci bokkaale feneen mu ne wa asxaru atbaa'i uni la fanaa ki gën a tuuti ci sama taalibe am na fanaawu ci yàlla te fanaawu ci yàlla mooy baabul maarifati mooy baabul fatxi te moom mooy bunta bu wilaaya kon bu nekk waliyu la naka nag ñi nga xam ne ñoom ci seen biir fatxu boobu noonu xéeg neen xéeg neen ba àgg ci maqaama kumalul rijaal yi yow gone gu ndaw nga nekk di leen xeeb di leen suufeel di wax ci ñoom safaan suuba loolu dal yaa ko def sa bopp moo tax nag faw ñu jéem a dégg yëfi bu baax a baax tey refer njortu bañ di dégg na tëll rek ne matt mi damm na bëri na ku ñuy askane mbir boo demee ci moom loolu sax nekku ci waaw xanaa dafa fekk ne loolu mooy sunna yàlla ci kaw suuf yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn gënu koo baax miñ tàn tàntal mii sallallahu alayhi wasallam juddu ci Makka mosuñoo gis ci moom mu jaar ci yooni ndaw mosuñoo gis mu ittewoo loo xam ne dinga ko ci xeebe mag ñépp def ko muy seen kilifa ñëpp rus ko boobu Muhammad la tuddagul Muhammadu rasulullah boobu yàlla yónneegu ko alayhi salaatu wa salaam ñu xam ci moom ak amaana moom mooy maandute ak kóolute ba nga xam ne ku am looy dénkaane yonent yàlla Muhammad salaa salaam nga koy dénk ñoom Xuraysh ñoo ko tuddee al amiinu kuñ óolu ki alayhi salaatu wa salaam waaye gis nga ba yàlla yónnee ñu commencé koo xas tuddee nañ ko dof tuddee nañ ko njabarkat tuddee neen ko fenkat te ñoom ñoo ko tuddee woon al amiinu dem neen sax ba tuddee ko al muzammam kuñ ŋàññi bu ci gaa yi daan mel yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne jarul mer man man maay Muhammad waaye man duma muzammam muzammam mooy kuñ ŋàññi waaye Muhammad moom mooy mooy ki nga xam ne moom mooy kuñ sant alayhi salaatu wasalaam loolu nag mooy sunna yàlla ci kaw suuf ci mboolem ay jaamam seen tàmbale foofu xasida yi day bëri waaye nag mbir moo xam ne am na fukki at ak juróom jàpp ñaar fukki at rek carte gi dafay leer ku ku nekk dina xam ka nekkoon ci dëgg ak ku nekkul ci dëgg kon nag moo tax rafet njort lu am solo la maa ngi gërëm bu baax nag euh, Cheikh Abdoulaye ak euh, Ansaru Diin ak mboolem taalibe yi nga xam ne teew neen fii gërëm sëñ Ousmane bu baax mi nga xam ne moom moo yar Demba moom moo ko defar moo ko samp fii ci jamono joo xam ne jamono ju métti la lépp ma fekkee ko ndax 15 ans yoo xam ne gàmmu gàmmu yu bëri mën naa am am na jamono ma tukki wala yii mu fekk ma feebar waaye bii moom bokku ci waaw mosuma koo tardé alhamdulilahi rabil alamin dalika fadlullahi yuutihi man yasha moo tax nag li ci xew lépp mën naa ko xam naa ko 2004 ba léegi fi ñu tàmbalee woon na mbir mi méttee woon ci tàmbale gi waaye 2004 bañ tàmbalee ba léegi fu ma si fu ma toog dinaa seen Abdoulaye Fall mi ak sëñ sekk mi ñu jàpp jàpp boo xam ne jàppin wu rafet la léegi nag alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla gàmmu gi yàlla màggal na ko bu njëkk ba mën naa am pour ñu rey xar sax dana daan jafe waaye taalibe yi ci boppam dem neen ba jënd gëléem loolu yëpp ci bunt ak yokkute la maa ngi ñaan loolu yàlla na ko yàlla dolli waaye jikko yi ñu ta di wax ci Baye Demba ku baax ku nekk wala ku bugg lu baax na nga roy jëm ci loolu mooy na nga mën a jëflante ak ñi ñuy jëflante bu baax waaye tamit na nga uutu sa sëriñ ci comportement boo xam ne ku la gis dina naw sa sëriñ dina bëgg xamante ak sa sëriñ sànq Cheikh Abdoulaye wax na ne taalibe sëriñ bu nekk bëgg nga am taalibe boo xam ne taalibe bu mel ni Baye Demba la bu mel ni la bàyyi waxoon ci waa Kumaasi ahlu Kumaasi ahlu ilmin wa rusuux fa misluhum fi rijaali matlubu shuyuux mu ne waa Kumaashi borom yi xam leen waaye tamit ñu sax leen ci seen xam ñu mel ni ñoom ñooy càkkute fi sëriñ si kon sëriñ bu nekk yaa ngi sàkku taalibe boo xam ne bu baax tey jëfee dégg nga da xam-xamam kon bàyyi dema ñu ngi lay ndokkeel waaye ñu ngi fu ñu la ndokkeel rek na ngay ndokkeel dégg nga de sa sëriñ Cheikh Ousmane fu ñu la euh, taggee ci jikko yu rafet rek ña ngi ko koy taggee moom ndax loolu moom moo ko def ci yow kon loolu yàlla gën a saxal bi warumati Moustapha sallallahu alayhi ñu ngi ñaan yàlla nag jotaay bi yal na yàlla gërëm ko ku fi teew yàlla na yàlla faj sa ajo ku am soxla teew fii nii mu jaaxal la yàlla na ko yàlla fajal bi warumati Moustapha sallallahu alayhi man mbuur alxamis ba léegi maa ngi fi gént naa de biig gént goo xam ne xam naa ne jotaay bi am na yaakaar ndax gis naa Thierno Hassane Deme radiyallahu anhu sama sëriñ du sama baye man sama sëriñ la moom ma tarbiya mënumaa gis na sama baye la gis na ko ci jotay bo xamne dañuy sikar di sikar di sikar muy taw ba place bi soppeeku géej wa mom mo ngi dox ci dox ci kaw géej gi ñun ñi ngi tuddu yalla tabaraku taala ba yewu sax yewu dama yeewu ak ay ronqañ alhamdullilah bu fekke na nak lola fi la ko géntee ñu ñew ci jotay bi ni ma ngi yakarna lolu te loolu loolu dina ko def motax ñi ñëkke ñaan bu ko defee Baye Demba waxoon na ma ne dama bëggoon nga waxtaan ci benn bayti Baye boo xam ne Baye radiyallahu anhu ci tagg yi mi tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa qul li mulukil ardi naamat uyunuhum wa haadaka mulkun laa yubaau bi dirhamin Baye mu ne waxal buuri àddina bi nga xam ne ñoom dem leen waxut buur yëpp parce que buur yëpp mënuñoo nekk ci dal xam nga am na buur boo xam ne tey mënta nelaw parce que dëkk ma ngay yëngatu am na buur boo xam ne gaa yaa ngi koy pexeel mënta nelaw dégg nga de ngir pexe yañ koy pexeel am na koo xam ne ñu ngi koy sànni ay taraake ki xaste yoo xam ne loola euh, ma ngi koy yëngal ba nga xam ne stressé na ko kon nguur neexut waaye mu ne buur yi nga xam ne ñoo nguur ku ci àggut moom nga foog ne moom mooy dayoo neex waaye boo ci àggee rek di nga xam ne duwut lu neex kon nu may ñëwee ci biir waxtaan wi waaye buur yi nga xam ne ñoom seen population bëgg neen leen ñu nekk nguur ñu nangul leen nga xam ne amuñ benn lu ñuy tiit wala lenn lu ñuy jaaxal bàyyi wax leen bàyyi na waxal buur yooyu ne leen man nguur gi nga xam ne ci laa nekk te moom mooy ne duma ma tàqalikook yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ne fu ma déggee bu ma déggee lu neex yonent bi lay fàttaliku su ma gisee lu rafet yonent bi lay fàttaliku yonent bi mënta deñ ci sama xol waxal buur yooyu ne leen nguur googu duñ ko jaay dégg ak dërëm xaalis mënu ci àgg loolu wax ju réy la moo tax nag loolu li ko indi moom mooy mbëggeel ci biir waxtaan wi fekkoon tàllaloon naa ko dinaa wax lan mooy mbëggeel mahabba lan mooy maraatiba mi ci ishqu ci shawqu ci ci mawaddatu shagaf ba mu jeex yooyu yëpp amoon nañ ci ay pàcc ki misaal yuñ ci waroon a indi waaye tamit bàyyi ci biir bëgg yonantoom alayhi salaatu wasalaam nanga xam ne noonu la ko doon fësalee ci waxam waaye tamit nañ ko doon fësalee dégg nga de ci ay jëfam ak i jëflanteem yooyu yëpp mu ngi woon ci biir waxtaan wi waaye dinaa ko résumer euh, ci lu gàtt ñu julli fajar lu yàlla def gannaaw bu ñu jullee fajar rek muy noonu wala kulli halin wa qul li mulukil ardi namat uyunuhum nit ki loo am te amoo yàlla li nga amuloo dara bàyyi wax na ne man wajada allah faqad wajada kulla cheyin wa man faqad allah de nga faqad faqada kulla cheyin képp koo xam nga xam nga xam ne nga am nga yàlla tabaaraka wa taala am nga lépp waaye koo xam ne ñàkk nga yàlla loo mën a am dégg nga amoo dara nit kum mën a doon yàlla def na ci yow ay bëgg-bëgg xam ne moom nga bëgg bëgg yooyu noonu mooy danga ciy utee ak kamaalu mat nit bëgg na alal parce que foog ne na alal daf koy gën a mën a dégg matal nit bëgg na daraja parce que loolu daf koy may mu raw ay maasam nit timit bëgg na nguur ngir man cee amee ak tedd nga goo xam ne gu dëgër lay doom waaye bëgg-bëgg yooyu yépp nga xam ne nit a koy bëgg boo bu demee ba àgg ci rek dina xam ne naka te lim bëgg nii du dara doomu aadama warut lu may saada te moom mooy bonheur te wala mom moy ak ak texe arab mom dina wax saada dina wax lazza al lazzatu moy banex banex luñ mëna a laal la man na nek ci lek nek ci naan nek ci wor way nek ci place bo xamne place bu rafet la place bu am ay gantax yoy yeb gisuwaay yoo xam ne la banex ba ca nek nit man nako koo laal waaye saada nag moom saada maanaa la boo xam ne dañ koy yëg dégg ci xol bi te nit mu ngi ut mu ngi ut saada lay ut bànneex lay ut ci lu mën a doon boo xoolee tey ki nga xam ne amagul xaalis bu demee ba am xaalis rek doo dootul yëgati ne am na xéwal boobu sax naka daf ko def kumpa la ko def kumpa moo tax muy wër ne loolu moo ko mën a may bànneex loolu moo ko mën a may texe bu demee ba am ko mu xam ne amul dara seetal kuy ut poste ci ne su ma amee ministère bu demee ba jot ci ministère bi rek day gis lii naka daa aadi la du dara du bànneex boo xam ne moom lay moom moom lay ut mënu ko cee amee ndax ñi doon ut alal buñ amee alal alal ja mënu leen a bijjil bànneex ba nga xam ne moom leen bëgg saada bi nga xam ne moom leen bëgg sa saada boobu nag muy bànneex boobu mënoo koo am lu may da ngaa connecté ci pay bi yàlla bi tabaaraka wa taala moom ngay amee saada foofu ngay mën a amee sakina foofu ngay mën a amee ak dal waaye nit boo xamee ne dafa ñàkk dafa ñàkk loolu suba lu mën a ut tamit mënu ci amee mënu ci amee saada moo tax yàlla wax na ne inna al izzata lillahi jamian teraanga tedd nga ak mayu yi rëy ak bànneex ak saada yàlla moo ko moom yàlla nga koy jegleel jaam mi nga xam ne ñoo daw jëm ci moom bu ko defee nag euh, nguur googu nga xam ne mooy nguur ak xol buy wetilu koo yàlla tabaraka wa kooku moom mooy xaqatu nguur moo tax sufiyanke boo xool na ne ñu ngi dund dund goo xam ne ñu ngi ci nguur goo xam ne bu fekkoon ne buur yi xam buur yi àddina xam neen ko doomi buur yi dinañ takk xare ñëw xeex ak ñun ngir jël dégg nga suñ nguur googu noonu moo tax moo tax nag koo xam ne àgg nga foofu da ngay doon koo xam ne ku noppalu ngay doon bàyyi radi laanu du ma wax ne àgg na foofu waaye ku fa àgg moo la fa àggale ndax koo xam ne dem na ba Paris hôtel ba nga xam ne dalal neen ko fa manta nelaw guddi googu noonu moom moo la naa Cheikh Ibrahima sax di laanu ci réception bi ci suuf dancing moo fa nekk ña ngay fecci làmp yaa ngi euh, di mel di di mel xat yi comme ku xam place disco yi ni mel loolu moom moo nekk ci hôtel bi te hôtel bi sa ñoo wax ne arrêté nen ko arrêté parce que sëriñ bee fi nekk déedéet waaye moom dafa wax ne leer yooyu ma doon gis muy mel xat yi woy musique bi nga xam ne moom may moom laa doon dégg waaye tamit fecc yi nga xam ne sax gaañaa ngi koy fecc ngir musique ba man mu ngi may fàttali xusam te moo yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo tax sax ca Qahira Adja Fat dem nettali na ma ko mu ne dañoo toog boobu ñoom sëriñ Serigne Mamoun nag fa ñoom maam Bass ñii ak euh, même imam Assane Cissé radiallahu anhu ñuy déglu musique Umu Kalsum bàyyi dugg si rek ñoom ñëpp ñu gaaw daw rek fay rajo bi bàyyi na leen déedéet taal leen man du ma sëriñ buy aaye musique duma sëriñ buy aaye musique waaw duma ma sëriñ buy aaye aaye musique moom mooy ne da defar ba nga xam ne yow boo toogee fu ñuy musique sax du la gêné man dinaa leen yemu ci loolu kër Thierno ñun dina daan toog taal télé bi foofu di seetaan football Thierno nekk ci digg kër gi du wax dara parce que nekku fa woon moo tax waaw nekku fa woon moom daal lu ko mën a delloo si rek moom mooy nga dóor fa xale waaye feek defoo loolu kër gi cool yi mën naa bëri kërti kërti kërti kërti waaye du yëngatu kon gis nga ak waaye boobu noonu dafa neex xaal boo mën a nekk doo fàtte yàlla tabaraka wa taala jalaal ak jamaal moo yemoon ci moom woykati wolof ba sax wax na ne nga koo yéem boobu aw naqar feeñ boo xoolee barxaama gis ko muy muuñ mooy jikkoom ñoom doon na ci Seydi Adnaan dogal bu rëy dogal bu rëy ba doyloo dégg nga Seydi barxaama teog la di jàngale ñu ñëw yootal ko na ko sa doom diw dee na mun alhamdulilah continuer jàngale jàngale jàngale ba pare ah ne maa ngi sant yàlla mu nga xam ne moo mayoon diw dégg nga de jël na ko wala naa luy jaañ mu dem tàggee ko dégg nga de ci jumaa kan moo mën loolu dal boobu ku ko man dal boobu ko amul xol bu dal ci yàlla mënoo ko am waaw di jàngale ñoo tàggee la sa doom boo moytu sax nga sànni téere ba dégg nga de sarxole di yuuxu waaye pesé la def moom moo la naa Cheikh Ibrahima sax la am loolu nag nguur la koo xam ne nguur gu neex la arifuna yi loolu len am ci jalaal ci jamalia de nga ci khasta ya ci tagg ya ci yekati ya ci soufa ya ci xeex ya yeb du len yengal parce que sen bët yi dafa jéggi action ya waye ñom ña ngay gis ki nga xamne mo yengal mbiri la yengatu xawma la ko yengal ko doole xam lu ko wolof di lu yengatu la ko yengal moo ko ëpp doole gars yi la ko yëngal moom la ñuy xool foofu nag boo ko amee da ngay am bànneex moo tax sufiyanke bi wax na ne ay temps sama xol bi dina am neex-neex yu ciy rombale yu ciy romb yu ciy jaar su fekkee na waa aljana kat loola la dund su boobaa mën aljana neex na su boobaa mën a aljana mën a aljana neex na kon nguur googu duñ ko jaayee dërëm dërëm mënu koo maye ndax xaalis mënta maye bànneex dajale na ay njabootam ba muy bindu testament am daf leen wax ne lu nekk ut naa ko ci alal ba tey ñu ngi ma def numéro un man maa ëpp alal waaye gis naa ne daal lii du dara waaw li ma doon ut ci bànneex lii mënuma koo may kon boo leen ko topp ba mu sànq leen loolu la digal ay doomam te tey mu ngi ci téeméeri milliards yi dollars loolu kenn xamu nu mu toll bu ñu ko séddale woon Sénégal ku nekk lu nekk di ko ci am te moom kenn moom moo ko moom kon nga gis ne ñu ngi sàkku alal waaye duul alal moo mën a maye loolu alal baax na ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee neex ma maalun saalihun fi yadi rajulin saalihin alal aka baax bu fekkee ne ci loxo jaam yàlla bu baax la nekk waaye nga déggee ci ne moo bon su fekkee ne ci loxo ku bon la nekk dañuy nettali benn waay boo xam ne ku bëri woon alal bëri ay dag lool nekk ci digg dégg nga këram waaye guddi gu nekk bu reeree ba pare rek day o dagami, ak ñi nga xamne ne ñoo nekk ci kër ga yépp na leen nañ ko génneel xaalis bi ñu génnee dinaar yi jóor muy fëgg kol ga di tagg alal ja na ko may góor fi nekk nii dajale naa la yaa ngi toll ci nangam waaw tey ku man rek maa man lu ma bëgg rek nga def ko alal yaa ka baax di tagg alal tagg goo xam ne di tagg boppam kontaan ci loolu ñu jëlaat alal ji delloo ko bu benn bés fim nek di takk fagubun ji rek am ko fëgg buntu bi fëgg bo xamne bu metti la ki dem xol na yow la kan mu ngi sol yere yo xamne yere yu rap la munako man la malakal mawti wala dañ nako yow la kan mu sen sen sang bi la soxla ñu nako ko déedéet suñ sang bi yow am nga barke mu ñew la ak yi ko yu demal mu laaj leen leen ku doon fëgg kan la ñu nako ben benn miskin bu ñak solo mo fi ñëw rek ñoo solo mo lu ngeen ko def mba dakk ngeen ko ñu ne ko dàq nañ ko waa ji ñëwaat fëggaat fëgg bu gën a métti ñëw bi ñu ne ko yow yaa ñëwati mooy leen maa ñëwati wax leen seen waa ji na ko ku ñuy wax malakul mawti moo ko dikkal bu ñëwee ci moom na ko ah nee na de malakul mawti la mu ne ko kon dem leen ngeen wax ko xaw leen la xawlan layyinan waxtaane leen mu waxtaan ju nooy négocier doon nag moom dégg nga mu dugg ci biir ba duggee mu ne ko bu fekkee ne dangaa ñëw pour jël si ma man bàyyi ma nga jël ñii ñi fi nekk ñépp dégg nga ma jox la sama alal ji mu ne ko déedéet du ma génn kër gi te jëluma la waaye bu ne neexee nga dénkaane ci sa xaalis bu la neex mu ne nañ ko indil xaalis mu téye xaalis nag di ko xas nañ ko daan taggee yaa bon yaa ma tereel may jaamu yàlla yaa ma daan tere géewi sikkar yi yaa ma daan tere géewi naafile yi yaa ma doon dégg nga tax may dem di jël sàng di jënd sàngara di naan di def di moy yalla tabaaraku taala jëriñoo ma dara yalla wax lo khalis khalis nako bul ma togn man jaamu yalla ni nga nekkee jaamu yalla ci suuf si la jugee ko nga jugee ko ci suuf si yalla tagat ma tek la sama loxo man boo ma yóbbu ci place jihad yi duma miskini bañ soo ma yóbbu ci miskini duma du ma bañ soo ma yóbbu ci tabax juma yi duma bañ ma ci dimbalé doomi adamay duma bañ ma ci safan timit ma dem uyi la yow kay defuma la dara yaatooñ sa bopp kon gis nga xaalis boobu noonu toskar rek lag lay indil nit kooku noonu moo tax am na benn waay boo xam ne entrepreneur bu mag la architecte bu mag ca Turc la dëkkoon moom moo defar pont kii euh, autoroute bi nga xam ne moo gënoon a rëy ci ci euh, quatre ci àddina bi moo gënoon a bëri oto yi fa jaar parce que dañuy wax ne bët bu set trois millions oto dina fa daan jaar ci turki waaye li ko defar ku bëri alal la keroog ba ñuy ubbi autoroute bi président teew ñëpp teew daf na nii rek plongé rek daanu daane boppam dégg nga ci géej gi xaru ñu ne kii lan moo tax muy xaru ñu dem fuyite ay bagage am ci hôtel ba fekk mu bind ci benn note mu ne damaa nekkoon nit koo xam ne dama doon ut bànneex ut naa ko ci alal awuma ko ci ut naa ko ci jigéen awuma ko ci ut naa ko ci sàngara awma ko ci ut naa ko ci lu nekk awuma ko ci ma ne xaaral ma jéem ko ut ci dee man naa am am ko ci dee seetal loolu maanaam da mu ngi ut saada ut bànneex ut bonheur dégg nga mu a fi nekk ni dee moo ci sës pour mu mos dee daal man naa am dee googu dina ci amee bonheur waaye dee googu fa la euh, tos di tàmbalee incha allah kon moo tax ñi nga xam ne alal rek leen gis dañuy sonn ci àddina waye ki nga xamne nak mom mo jëm ci yàlla tabaaraka taala mom alal ak lulut alal mo yem ci mom jalal ak jamal mo yem ci mom ndax xol ba ma ngay dund yàlla tabaraka wa taala bàyyi nak radiyallahu anhu gis nga dafa nekkaloon dafa bëggoon yontu bi alayhi wasallam ba nekk di yontu bi alayhi wasallam fa law sawaruni fi lxaqiqati lam yaraw siwa saqsin mahbubin bihi natamatau bu ngeen ma photo won deug deug photo du ngeen gis kumay may yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam waaw léppam yonantu bi la woon loolu nag moo tax yonantu bi du doon tàqalikoog moom boo ko gisee jëmmam ji doo gis rek lu may yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga gis imaam Cheikh Tidiane Sy Aliou Cissé nettali na mu ne ca Gaana bàyyi daf faa ñëw benn waaye di jaay rek am ambulant nii dox ci mbedd mi gis ñi ñaa ngi rëj rëjloo ci bàyyi mu ne ku fi nekk ñu ne fii benn sëriñ fi nekk mu a xaaral ma dem xool ko dafa ñëw dugg jàkkaarloo bàyyi rek daw génn ñu ne ko lan la mu ne ki bu duwul yàlla yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam la bu duwut yàlla yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa la kon bàyyi ku doyoon waar la moo tax nag nguur googu nga xam ne am na ko te moom mooy teewlu yàlla daa iman di ko may nit ñi sëñ Ousmane nee na ku bugg ilxsaan ci bàyyi rek nga ko mën a amee loolu moom mooy xaqiqa loolu moom mooy dëkk waaw ñi jaar ci moom ñépp yàlla may na leen loolu lépp luñ làkk ci péeb yàlla bi nga dégg ko waaw luñ làkkagul sax mën nga koo jëli na loo xam ne làkk nañ ko loolu mënoo koo am lu may ci buntam nga ko amee muy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu waaye gis nga nguur googu mu nekkoon sax yàlla daf koo dëggalal dëngale ci àddina xam nga ba muy wax ne xadimuka malikhul muluka kay yura li xadimika maxdumal muluki amira mu ne sa bëkk néeg bii di Ibrahima na nga ko tàggatal buur yi ba nga xam ne dañ koy gis ne moom buur yi ci boppam ñoo koy liggéeyal ba mu njëkkee génn Sénégal 1937 buur bu ko njëkk a nekk taalibeem di Abdoulaye Bayero buur la woon moo moomoon kanu moo doon xelil bàyyi muy jàpp bu bàyyi deselee mu barkeelu di ko bësal te boobu mu ngi ànd ak ay dagam waaw ba noonu ca Nigeria ca Ghana buur yi fa nekkoon yépp dégg nga tuub neen ñëw nekk ay taalibe moom la Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu emu ci loolu président àddina bi fu mu fa dem rang yi président lañ koy teewal lañ lañ lañ koy teg seetal photo boobu nga xam ne mu ngi toog ak Jamal Abdou Nasser maréchal Tuutu ba ñuy ubbi xanaatu Suisse xam ngeen ne heure boo xamee ne ay président dañoo teew protocole li mu laaj moom mooy ne foofu ku dul président waroo faa toog bàyyi rek moo fa toog te dul président waaye moom mooy président président yi moom mooy buuri buur yi loolu nag mu ngi ko amee ci sangam ba yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bàyyi radiyallahu anhu ci bu fekkoon na dañuy xuus ci ni nga xamee ne noonu la ko yàlla mayoon dooley teewlu péeb yàlla bi tabaaraka wa taala ak di dund yonent bi sallallahu alayhi wa ci xaal bu nekk ba yonent bi du am du am la ci yonent bi wala laxza waaxida

mu ne nga magal yàlla tabaaraku taala top yàlla tabaaraku taala xam ko xam go xamna xam gu wér la waye am ñëwent ci mbindeef yàlla xam nga baat bo xam la baat bu gàtt la gis na ñuy ta'rif al islam ta'rif yu yaato yaato yaato yaato waye ta'rif bobu nga xamne jami' ala shamil la gàtt musuma gis ku waxe nonu ndax moy ki nga xamne mo moom moo dégg yëf yi kon motax daw jëm ci yàlla di dund yàlla xaqiqatan bañ a am xaf la ci péeb yàlla bi am ñëwenti jëm ci mbindeef yàlla yi am adab danga ci mbindeef yàlla yi tabaaraka wa taala am xusnu zanni mooy rafet ak njot ci jaamu yàlla yi waaye tamit am teggin woo xam ne danga ko tegginoo ci feeñuwaay bu mu mën a doon jaamu yàlla boo xam ne def na loolu suuba yàlla dina la may danga ci si jotaay yi jotaay yépp loolu moom la ñuy loolu moom la ñuy moom la moom moom moom la ñuy sàkku mooy lan rek am xol boo xam ne dafay dund yàlla xaqiqatan loolu nag lépp lu la ko mën a may rek doxal jëm ca bu ko defee nag euh, ñu ngi may wax na ma fajar jot na ñu jóg dégg nga de julli gannaaw fajar nag macha allah loo xam ne def nañ ko rek ci sikar dina doy wala buñ mënee waxtaan ñu waxtaan gannaaw gi waaye laa kulli xaalin euh, jotaay bi liñ ci bëggoon daal yàlla def na ko maa ngi ñaan yàlla yàlla yàlla gërëm yàlla yàlla yokk ci zaahir ak ci baatin yàlla yàlla fay bàyyi démbay te yàlla yàlla yokk ko yokku yi ku sonn ci gàmmu gi yàlla la yàlla dégg nga def fay sa coono yàlla ubbi buntu wërsëg yi te barkeel ko yaal ko bi xurmati Mustafa sallallahu alayhi wa ci barke Baay radiyallahu anhu allahumma salli ala sayyidina Muhammad أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله رسول الله حياة الصلاة يا رب الملائكة قامت الصلاة قد الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عينهم فأغنى فمن الذي وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك